asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di jiitoo nuy bi suñu sëriñ suñu wasila El Hadj Thierno Moule le roi de la médecine traditionnelle du monde le king of the king le maréchal Allah Muhammad borom baatu baatin borom kum fayakum borom sam si samaru si buur waa di nuy la princesse madame Sow la reine di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuyu prince Moulé le futur des rois di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm gudd fan band ak wér yaram yàlla yàlla romb génération yëpp si barki yàlla ak yeneen tubaab ñett Thierno Moulé Sow di nuyu ajaratu Mariama Camara di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm. di nuyu soxna ummi di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuyu jinne yëpp di leen ziar bu baax di la ñaanal jàmm. di nuyu association Thierno Moulé famille Darou bu euh, national di ko dalee si joorim bi. jëwri mamakat jata ba maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu jëwri mamakat mbub di ko ziar di nuyu mama tunkara di ko ziar di nuyu jëwri di ko ziar di mule mule ñi nga ñoo ñëw fi nekk Ablaye Diaw maa ngi lay nuyu di nuyu Sokhna Ramatoulaye Dieye di nuyu Sokhna Rama Diouf di nuyu Sokhna Ramatoulaye Sy di nuyu Sokhna Ami Koli di nuyu Moussa Diédiou di nuyu Sokhna Ndeye Diakhaté di nuyu madame Babou di di nuyu Soxna Kamoy Dieng di nuyu mule mule yëpp aussi ñi nga xamante vraiment euh, nekkuñu fii di nuyu si association Daaru Laay bu international euh, di ko dalee si joorim bi euh, tonton Sosek Oumar tonton Galasso tonton Fabakary Sonko Soxna Fama Sow Soxna Dikel Sow ak mule mule yëpp ci kaw boo suuf ma kenn di nuyu aussi association Daaru Laay bu Sénégal bi di ko dalee si joorim bi Soxna Mariat Mané ak mule mule yëpp ci kaw boo suuf baay ma kenn macha allah donc euh, di am kontaan ak mbette di ñëwaat si la TMS TV comme li nga jotee jotaay bi euh, jotaay bi noonu jotaay ji jàmm la jotaay salaam la ndaxte ñu mule mule euh, national dañoo dajoon fii si kër sëriñ bi pour ñu waxtaanee luy dem si bis le 4 mars inauguration clinique anniversaire et inauguration clinique bi ziare général donc loolu moo ñu dajale fii macha allah tombe na aussi euh, taalibe yi sëriñ bi dafa woon si taalibe yi maanaam euh, nañu <coughs> nañu barkeel si kii euh, dëj lalla ñu envoyé kii nii ñu maanaam ñu jokke kii jiyaale waaw adiya Thierno Moule Sow donc loolu noon dajale nañ ko di ko commencé si waa international donc ñoom dajale nañ valeur de huit cent et quelques mille waa national aussi dajale nañ deux cent mille Euh, macha allah loolu la sëriñ bi fas yéene daal donc euh, vraiment jébbal ko euh, waa Kër Lalla donc loolu moo waroon jotaay bi incha allah donc sans plus tarder dinañ jog sëriñ bi kàddu bi incha allah. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a unju billahi min ashaytaani rajim wala xawla wala huwata illa billah alay azim gannaaw ba ñu sante suñu borom ñu ngi julli ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di suñu yaakaaru tey ak ëllëg macha allah gënal ñu suñu ndey gënal suñu baay ñoo ngi am kontaante ak mbégte lool macha allah ci jotaay bi tey toog ak taalibe yi mule mule yi vraiment macha allah ñoo ngi fii feggoog euh, jëwriñ Alseeni Silla mule macha allah jëwriñ ajaratu xadi Buub macha allah jëwriñ ajaratu xadi ba macha allah Ablaye Jaw macha allah soxna Ramatulaay Jeey euh, soxna Rama Diouf macha allah soxna Rama Si ami Koli macha allah Kamo Dieng macha allah nday euh, euh, Marème Faye Sall nday Jaxate madame Babu Moussa Jeeju macha allah bàyyiwuñu kenn macha allah ak taalibe bee Saar. macha allah euh, di am kontaan ak mbégte lool vraiment di nuyu mule mule yëpp nag euh, vraiment daarulahi national ak international gis ngeen fan yi vraiment xam naa ne mule mule yi saan tooguñu taxawuñu ndeysaan ndax xam naa ne bis bi dañ koo yenu gis ngeen ko boobu ba tey ñoo ngi fi bàyyi seen kër yëpp bàyyi famille bi yëpp ñëw toog ñuy def réunion di def entretien pour euh, préparation ouverture clinique bi macha allah ak ziar officiel bi macha allah. Euh, macha allah euh, di nuyu aussi waa international di nuyu jëwriñ Fabakary Sonko Moule jëwriñ tonton Sow Cheikh Omar jëwriñ Gallo Sow Moule jëwriñ faama Sow jëwriñ Dikel Sow Moule Moule yëpp waa international nuyu nañ leen ak waa Sénégal bi mule Moule yëpp ñoom euh, Marietou Mané ak ñëpp vraiment bàyyiwuñu kenn suñu limee dañuy juum waaye nag macha allah suñu taalibe boobu ndeysaan di soxna Lalla Diagne macha allah mi nga xamante ne barki Dembo Ndiaye moo fi làqu ndeysaan saa su ne mule mule yi dañ koy fàttaliku di bàyyi xel ci moom saa yuñ toogee di waxtaan rek ndeysaan dañ koy fàttali suñu xel day dem ci moom ndax vraiment daf ñoo manqué lool ndeysaan euh, macha allah di nuyu waajuram bu baax a baax ndeysaan euh, papam euh, sëñ Diagne ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu yaayam ajaratu di nuyu rakkam Ami Diagne macha allah roqee di nuyu famille bi yëpp aussi di nuyu doomam yëpp moom soxna Lalla Diagne ndeysaan di nuyu waa Mbacke di nuyu waa Touba bàyyiwuñu kenn macha allah di sant yàlla bu baax a baax vraiment di leen ko di di ànd ak yéen rek naqar ak bi vraiment di ko ñaanal saa su ne euh, tey nag macha allah. Euh, mbokku taalibe yi mooy mule mule national yi mooy mule mule international yi ak ñeneen sax ñi nga xamante ne vraiment bokkuñu ci international bi ñoom ñëpp vraiment ñoo dajale tey macha allah xaalis bi vraiment macha allah ñu fas yéene jaale euh, soxna Lalla Diagne euh, macha allah waa international bi boo xoolee ne macha allah am nañ euh, quatre cent am nañ kii huit cent quatre huit cent quarante trois mille waa international waaw huit cent quarante mille cinq cent quatre vingt mille loolu la ñu am quatre vingt mille. macha allah maanaam boo xoolee huit cent maanaam huit cent cinquante mille la ñu am presque moom la waa international euh, dajale taalibe yi boobu ba tey vraiment ba ñu yëgee naqar ak tiis bi ñoom ñëpp ma ne leen nañu fexe ñu def addiya addiya njaal boobu ba tey nag ñoo ngi dajale xaalis bi macha allah li ñu ma doon yónnee yëpp dajale nañ ko ba dem na ci presque huit cent cinquante mille euh, waa international macha allah. boo xoolee aussi waa national tamit vraiment ñoom ay jàmbaar lañu kenn demul ñu des mule mule yi ñoom it dajale nañ valeur deux cent mille macha allah pour addiyee njaal seen mbokku taalibe boobu di soxna laal Lalla Diagne euh, macha allah lépp lépp muy un million cinquante mille moo nekk nii ci taabal bi vraiment euh, maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm muy waa national muy waa international ndax lii yëpp ndeysaan mënoon leen ci bañ a fekk mënoon nga ne ah macha allah suñu mbokk taalibe boobu dem na ñaanal leen ko rek jeex na waaye defoo leen loolu ba ma leen ne yéen kat vraiment macha allah suñu seen mbokku taalibe dem na nañu fexe. kenn ku ne def addiyee njaal ba ma ko waxee waa international ñoom ñëpp ndeysaan ñoom Gallo ñoom Faabakari dañu jóg ñoom Faama ñu daal di koy euh, def euh, info ci kër gi mule mule yëpp jóg taxaw vraiment dajale xaalis bi moom la ñu dajale noonu bu ñu ko waxee aussi fii ci ci daarulahi national ba ñu ko waxee ci jëwriñ Alseeni Silla jëwriñ macha allah ajaratu xadi mbub euh, ajaratu xadiba ñoom it vraiment ñu jóg wax ak mule mule yi ñoom ñëpp ñu jóg vraiment takku ba dëgër dajale loolu moo nekk somme de un million cinquante mille macha allah kon nag mu le mu lay sant naa leen gërëm naa leen ndax nag vraiment seen sëriñ lépp lu mu xewle ak fépp mu taxaw rek ngeen ñëw wane seen bopp kon nag maa ngi leen di sant bu baax mule mule yi muy national muy international yal na yàlla fay leen yal na yàlla defal leen jàmm ak xéewal yal nañ ko yéex a fayantoo lu mel ni yàlla na fi géej vraiment ñu ngi leen di sant bu baax a baax soxna Lalla Diagne nag duñu ko mos a fàtte ilaa yow mi diini loolu moom ci xol yi la des waaw mënuñu ko fàtte macha allah waaye nag saa su ne dinañ ko ñaanal suñu borom te ci lañ dëkk te mule mule aussi ci lañ dëkk kon nag duñu ko mos a fàtte ndax nag boo xoolee euh, ziar bi sax ak ouverture bi dama ko buggoon aj mais macha allah moom moo ngi ko doon préparé mu ne mu envoyé ma audio mu ne sëriñ bi maa ngi préparé ziar bi ak ouverture clinique bi moo tax ma ne euh, dama dem ba ci digg bi ma ne non foog ma def ko parce que ndeysaan moom moo ngi ko doon préparé yàlla jëlee na ko fi euh, bu ma ko deful rek euh, maanaam loolu da koy manqué kon nag moo tax ma def ko ba pare bu ñu ko defee dañu koy ñaanal ci juru ziar bi dinañ ko ñaanal bu baax a baax dinañ ko ko bu baax a baax. Euh, macha allah kon nag mule mule yi amu awma seen fay yal na yàlla defal leen jàmm vraiment euh, nii la ndax nag vraiment euh, di yëg ngeen ma faale ngeen ma ndax nag lii mënoon na ñàkk nag ndax boo xoolee valeur un million cinquante mille yombul am na ñu bëri ñi nga xamante ne ndeysaan dañuy yor ay taalibe bu seen taalibe yi làqoo ah du ñu dajaleel seen seen seen du ñu dajaleel dara seen taalibe waaye yéen ba ma leen waxee rek vraiment da ngeen bàyyi seen yëpp vraiment ngeen dajale ko kon mu nekk ci valeur de un million euh, cinquante mille macha allah léegi nag kon nag sant naa leen gërëm naa leen euh, di nuyu madame Sow la reine euh, prince Moule soxna ummi ajaratu Mariama Camara ñoom it rafetu nañ lii lool ndax ba may wàcce léegi wan naa leen xaalis bi vraiment ñu sant ma gërëm ma ñu sant leen yéen Moule Moule aussi ñaanal leen ñu ne vraiment ay jàmbaar ngeen ndax lii yëpp mënoon na ñàkk waaye vraiment da ngeen da ngeen bëgg seen sëriñ ba seen sëriñ lu mu leen wax rek vraiment ngeen ngeen def ko kon nag sant nañ leen ñaanal nañ leen bu baax a baax yàlla nañ ko yéex a fayantoo waaw nag soxna laal la ñoo ngi nuyu njabootam parce que dafa bàyyi ay xale ñoo ngi leen di nuyu ñu mit di leen ñaanal bu baax jàmm ak taw féex léegi nag xaalis bi moo nekk nii kara euh, un million cinquante mille moo nekk ni waa national ak waa international léegi ci biir loolu dama waxtaan ak mule mule yi waxtaan ak jëwriñ yi mule mule yi waxtaan ak ñoom euh, waxtaan ak aussi famille bi ci kaw ba ñu waxtaanee nag macha allah euh, li ñuy li ma xalaat mooy ak li ma bëgg mooy lan mooy xaalis bi ñu partagé ko suñu ko yóbbee ci famille bi euh, ñu jël xale yi ñoom ñett lañu kenn ku ne ñu jox ko deux cent cinquante mille mooy xale yi. waaw mooy mooy ñetti doom yi mu fi bàyyi kenn ku ne ñu yëkkati juróom fukki junni ñu jox la su ko defee day nekk euh, day nekk téeméer ak juróom fukki junni day nekk sept cent cinquante mille kenn ku ne bu ñu la joxee deux cent cinquante mille boo amee Wave wala Orange Money nga dugal ko soo amee say besoin yi sew nga def ko bu dee dafa am la war a fay ci école bi wala ay fourniture nga di nga mën a dimbaliku ndax ndeysaan sa yaay dem na waaye nag ay mbokkam mule mule ñoo ngi fi ñoom ndax ñoom ñoo dajale lii. pour jàppale leen ko macha allah pour mu dëgg la mu doo mun a fàtte seen yaay waaye aussi ñoom it dinañ leen taxaw fu seen yaay taxaw woon muy soxna Lalla lool moo waral lii su ko defee xale yi gone yi kenn ku ne ñu ñu jox la juróom fukki junni loolu ndigal la ci man man maa ko wax waxtaan ak su may taalibe maa joxe ndigal boobu su ko defee dinañ am ñu ñu jox xaalis bi bu ko defee ñu fexe ñu yóbbu ko su ñu eggee kenn ku ne ñu jox la deux cent cinquante mille bu ko defee mu des. bu ñu joxee kenn ku ne deux cent cinquante mille euh, euh, cinquante mille bii teg ci kaw bi dañ koy jënd essence ñiy yóbbu xaalis bi ñu yóbbu ko kon un million la ñuy yóbbu ñu joxee sept cent cinquante mille yi ñoom ñetti xale yi euh, ñu jël cent mille franc bi ndax ñoo ngi jublu ci ñeent fukki guddi lalla yi nga xamante ne ndeysaan ci la am ci suuf ñu ñaar fukki junni ñu wàccee ci kaamil def ci def ci def ci togg yi ak ñam yi saraxee ko ndax ku bëggoon togg la ñu ñu saraxeel ko ci loolu euh, mu des fan fanweeri junni ñu jël benn fukki junni bi saan jox ko yaayam ajaratu bi ñu jox ko ko jëlaat beneen fukki junni bi jox ko papam macha allah beneen fukki junni bi ñu jox ko ami jaañ ak euh, macha allah roqee kon nag defe naa ne su ko defee un million bi daal di mat kon nag lii la taalibe yi dajale woon muy un million cinquante mille bu soobee suñu borom eh, macha allahu alseeni un million cinquante mille ngi ni cinquante mille bi moom nañu ko def essence un million bi bu ñu demee ñu jébbal ko bu ñu demee xale yi kenn ku ne ñu jox la deux cent cinquante mille ñetti xale yi ñoo xam Orange Money wala Wave ñoo xam fu ñu denc seen xaalis di ci coppati ndànk-ndànk xëy na lii tamit balaa moo jeex incha allah yàlla dina defaat leneen ndax du ñu leen fàtte te du leen bàyyi lu ñu mën dinañ leen jàppale mais pour l'instant euh, lii mooy addiyee njaal bi kon nag su ko defee euh, macha allahu euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonte yàlla Muhammad salaa salaam yéen ñi joxe lii muy waa international muy waa national yal yàlla aar leen yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla defal leen jàmm ak tawfeex ak xéewal ndax nit kat lii la mënal mbokkam mbokku taalibeem ndax nag lii nga mënal sa mbokku taalibe ndeysaan nga ànd ak moom muy neex yàlla fexe yàlla jëlee ko fi ah, nga nga dox kóllëre lii mooy kóllëre kon nag <clears throat> kontaan naa ci yéen bu baax a baax su ko defee nag yàlla yàlla def jàmm di ñaanal ñëpp jàmm waaw macha allah xam ngeen ne euh, le le vingt six février euh, suma suma papa di alaaji Mamadou Aliou Sow macha allah di suma waajur bu góor di waliw yàlla boobu nga xamante ne ndeysaan dafa daan fanaane toog di julli di wirdu ndeysaan dafa dem ba jéwam bi sax boo gisee euh, dafa dem ba marqué euh, ndeysaan anniversaire am le le le vingt six mars la euh, ñoo ngi koy waajal bu baax a baax nag le vingt six mars bi ndeysaan deux mille cinq la gaañu kon nag le vingt le vingt six mars bi mooy anniversaire am kon nag bu soobee suñu borom dinañ ko wàcceel ay kaamil waaye nag dañu koy kale bala kaat bi ci ci kii bi ci immigration clinique bi dinañ ko wàcceel ay kaamil même soxna Lalla Diagne tamit nañ ko wàcceelaat foofu ay kaamil fu ko defee ñaanal suma waajur boobu di alaaji du Aliou Sow tey nga xamante ne moom moo ma meññ tey ndeysaan bàyyi ma fii ci àdduna bi vraiment may jàppale jaam ñi di dimbali jaam ñi kon nag moom ñoo ngi koy ñaanal bu baax yal na yàlla yokku leeram yal ko yàlla yërëm xaare ko aljanna xam naa ne moo ngi aljanna ndax nag boo bàyyee doom bu mel ni Thierno Moule Sow ci kaw suuf muy dimbali jaam ñi di jàppale jaam ñi ah yow fa nga nekk moom yaa ngi aljana ndax nag parce que euh, moo tax euh, boo amee boo amee doom bu baax boo ko wanee ginnaaw sax yow fi nga nekk yow yaa ngi ci jàmm kon nag ñoo ngi koy ñaanal bu baax suñu baay jooju alaaji Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk sa leer ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax mule mule yëpp nag ñoo ngi lay ñaanal vraiment kon nag euh, macha allah ñoo ngi lay ñaanal bu baax la 4 mars incha allah dinañ ko wàccel ay kaamil ndax maak moom. Euh, sama ñaan ci moom man amul heure ndax man saa su ne damay wo ñiy jàng kaamil bu ñu ñëwee ñu wàcceel ko alxuraan kon nag alaaji Mamadou Aliou Sow yal yàlla yokk sa leer kon nag ñoo ngi koy ñaanal suñu baay jooju nga xamante ne vraiment yar nañu ci diine ci lislaam vraiment taxawul na njaboot gi ak famille gi yëpp di nuyu suma yaay aussi ajaratu Mariama Camara ndax ñoom ñoo àndoon macha allah moom it ñoo ngi koy ñaanal fan bu gudd bu ànd ak wér moom ajaratu Mariama Camara na fi yàgg lool te am weer macha allah di nuyu suma goro bi soxna ummi di ko ñaanal bu baax wér ak gudd fan di nuyu aussi euh, madame Sow la reine ak prince Moule di leen ñaanal fan bu gudd bu ànd ak wér di ñaanal Moule Moule yëpp fan bu gudd bu ànd wér kon nag macha allah yàlla na yàlla def jàmm su ko defee taalibe yi dinañ déplacé wu. suba yóbbu xaalis bi ca Mbàkke Bawal kon nag ñoo ngi nuyu ñëpp di la ñaanal jàmm yal na yàlla def jàmm ci barke yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam le 4 mars nag bu soobee suñu borom ah dinañ fa jàng ay dinañ fa wàcce ay alxuraan dinañ fa def jàng kaamil macha allah dinañ waxtaan ci yonente bi vraiment dinañ inaugurer clinique bi fàttaliku ci laal la fàttaliku parce que laal la duñ ko mën a fàtte ndax am na fuñ jaar ak moom. kon moom duñu ko mën a fàtte ilaa yow mi diini macha allah saa yi ñu waxtaanee rek suñu xel day dem ci moom waaye nag nañu ko ñaanal te ñoo ngi koy ñaanal vraiment ñoo ngi ñaanal mule mule yëpp vraiment aussi di di ci di woo ñëpp nag ndax nag euh, Youssouf Moulé defe naa ne Maroc la nekk moom it ci mule mule yi la dagg na biyem toog na ay at at bëgg a ñëw Sénégal mu jafe ko waaye ziar bi ba mu ba ñu ko defee ndeysaan yàlla def ko yombalal lépp. dagg na billet mu ngi ñëw Youssouf Moulay Maroc lay jógee euh, ku mel ni ndeysaan fi si ni Traoré defe naa ñëwoon na fi barki Dembo Ndiaye sax boobu ziar bi jotagul mu dellu daggaat na biyam moo ngi ñëw mooy Virginie Traoré macha allah Adama Moule ku mel ni aussi soow mu le moom mi dagg na biyam fas yéene ànd ak ñetti séeram aussi ñu déplacé wu jógee ba Paris France euh, même visite ni Paris lay jógee ñoom it ñoo dagg nañ seen billet ñoo ngi fas yéene ñëw ci jaar bi ci ouverture clinique bi ku mel ni Cheikh Talibou Ye aussi dagg na biyam def na réservé moom mi ngi joge ba Suisse vraiment pour ñëw ci jaar bi euh, ku mel ni Aïssatou aussi moom jóge na Suisse ñëw na pour jaar bi macha allah ku mel ni Kéba Savané aussi jóge na Paris France mu ngi fi pour jaar bi euh, ku mel ni aussi macha allah. ñaama soirée tamit macha allah mu mi dagg na biyam Paris lay jóge day ñëw ci ziar bi mule mule yi bëgg a ñëw yëpp dafa bari munuma lim ñëpp nag macha allah am na ñuy jóge am na ñuy jóge euh, Gambie am na ñuy jóge euh, Mauritanie am na ñuy jóge partout dans le monde euh, vraiment di waajal ziar bi ku mel ni Maymuna Si aussi defe naa xam ngeen ko may Maymuna Si mi nekk ci Espagne moom mi dagg na biyam nee na day ñëw. waaye beneen xaritam bi dafa maa mu ne ma sëriñ bi ma ne ko naam a ah, mu ne ma ni dagg naa sama billet damay ànd ak may mun a si damay ñëw kon may mun a aussi dagg na xam nga ne may mun a Espagne la ne saa yu ñu xewlee day dagg billet am spécial jóge jóge jóge Espagne ñëw kon mule mule yi dagg bi pour pour ziar bi ak pour euh, clinique bi dafa bari yàlla yàlla dafa leen yoonu yoonu jàmm ak yoonu tawféex ñuy ñëw ci bisimilah rahmaani rahim dellu ci alhamdulilah rabbil alamin te bisu clinique boobu ñu koy ubbi macha allah ak ziar bi képp ku fa ñëw yàlla de na faj sa aajo kon nag ñoo ngi nuyu ñëpp vraiment di ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah